abonați să și în YouTube, ca سي iată-l pot فاش تي في اتو să-i am صفات صالح المريد باختصار عربات نسم دحى خوف اختلاف بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا معين وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوني سن sunu mbokki taalibe yi yëpp di nuyu itam di leen siyaara ci weer wu tedd wu barkeel bi ñu nekk di leen ndokkeel itam ci xew-xew bu màgg bu barkeel bii nga xam ne moom lañuy ñuy dëdmal nit ki gannaaw ëllëg di jiital ci siyaara bi nag ak ndokkeel bi a Cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul aam di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko lool te dool ko kàttan ak ki taw feex ak sago ba yéene ji am ci liggéeyal ko maamam Seexul Xadiim naal yim tàmbali ak yim yéene yëpp rek suñ boom defal ko taw feex ak kàttan ak fan gudd ak wér ba mu àggale yooyu yëpp ci anam gëm gën a mate gëm gën a selle gëm gën rafete te ñu ànd ko ak moom te sëriñ Touba nangoo ñu lépp yonent bi saa sam nangoo ñu ko suñ boom nangu ko te ñu tase ci ak ngërëmam subhaanahu wa di nuyu itam sunu kilifa di sunu jëwrin di ki nga xam ne moo dekkalaat sunuy xel dekkalaat sunuy xol dekkalaat sunuy roo defar ci ñun almuridu saadiqu def ci ñun himma ba nga xam ne sunuy yitte yépp ak sunuy bëgg-bëgg ak sunuy nammeel ak sunuy jubluwaay ak li nga xam ne ci lañ dogu jëm ca te fa ci yéene dëpp duñ deltu ginnaaw du dul àgg rek mooy te leesut am ngërëmu suñ borom subhaanahu wa taala ne ko suñ borom sëñ Tuubaa waxe woon ne isil muriidu laa yuriidu su xasada moom nag moo yee suñuy xel ak xol ak ba léegi suñuy itte yëpp suñuy yëg-yëg yëpp weesul rek fa séenee am ngërëmu suñ borom subhaanahu wa ñu ngi koy ñaanal suñ boom yàggal ko fi moom itam te wéral ko ba liggéey bi mu liggéey Serigne tuubaa di ko liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéey suñu borom mu àggale ko ci nam gën a mate nam gën a selle lépp ñu ànd ko ak moom ah, daanaka nag wax ji sax mën naa mën naa gàtt ndax li sëñ Souleymane mi jiitu léegi wax ci bis bi ak li ci aju doy na sëkk ci ak leeral doy na sëkk ci ak fàttaliku doyna sekk ci ak bëgg xam motax tax daanaka fuñ fuñuy jaar sax xamuñ ko waaye ndigal moom bu xasee ak si moom ci ab murit lu mu tële tële itam dana ko jéem moo tax rek ñuy wéyee jëfe ndigal loolu rek bis bi moom day bis bu màgg di bis bu barkeel di bis bu tedd ni ma ko doon waxee sànq ci kanamu sëriñ bi bis bi nga xam ne ci la sëriñ Touba liggéey liggéey bu màgg bu sell bii nga ne mooy tàmbul bu liggéey bi ci lañ ko fi jële woon mu dajeek ay noonam dem liggéeyal suñu borom liggéey bu màgg bu tedd bu sell bu mat sëkk ci baat na ci saaxir te xel ci mboolem aw xeetam dellusiwaat fii barke baa xew li mu bokk ñëpp ci mbaaxam ak yërmandeem te ba muy dem moom dong mu demoon tegoo nattu yaag balaa yaag tarta yaag tiisi moom kese mu yanu ko waaye la ngir mbaaxam ak yéen ak gore gum gore bis bi moo tax ñun tam dañ cee war a taxaw taxawaay boo xam ne lépp luñ xam lépp luñ am lépp luñ man rek dañ ko war a def ci bis bi ndax li gën a jafe mooy gindeeku ak njub te loolu bis bi ci lañ ko amee bis bi itam moo tax tey ñun ñëpp ñu gore ba mën a moom suñ bopp ba kenn ku ne mën a tànn yoon wi nga bëgg a jaar nga jaar ci bis bi itam moo dàq lëndam ci Sénégal ak ci Afrique ak ci adduna bépp indi fi leer goo xam ne képp ku bëggatee dox ci leer dem ci suñ borom subhanahu wa taala rek bunt bi ubbeeku na kon moo tax nag kon sant gi nga xam ne moom la ci sëriñ bi santaane cant googu moom dafa war képp koo xam ne nii ab murit nga war képp koo xam ne ab julit nga ndax kat sëriñ bi bi muy dem demutoon wu ay waa këram kese waaye dafa demoon ngir mbooleem jaami suñu borom yépp ndax doy na sëkk lay màndargama lay firnde ja ba mu ko suñ boom joxee la mu koy jox ba muy tinu tinuwut aw askanam tinuwut ay taalubeem tinuwut ñi mbokk réew kese yam ca wala ñi mbokkal ñi nga xam ne ay jul kese lañ ca waaye mbindeef suñ boom yëpp la tinu yaa maalikal mulki yaa man jàlla an qawadin irham jamia alwara ya radaa kon kooku ñëpp la fi nekkaloon kon moo tax bis bi kon ñëpp ci war a bàyyi xel te mel na ne itam ñëpp bàyyi nañ ci xel ndax ni nga xam ne nun ñi nga xam ne ñun la suñ boom defal tawféex ñu bokk ci ak njabootam gëm ko bëgg ko sopp ko fas yéene ànd ak moom àddina ak àllaaxira jaay ko suñ lépp te soxlaatuñ ci dara niñ ko amee pas ak bés di ko dundal noonu la ko ñeneen di dundal ñoo xam ne ay jullit lañ donte nekkul ci biir yoon yi ak ñeneen ñoo xam ne sax duñuy ñuy jullit ndax tey foo dem ci adduna rek bis bi am na fa màndarga am na fa wàccuwaay ba ñëpp a ngi koy bàyyi xel kon loolu day wane ne kon liggéey bi mu liggéey borom léegi rasulullaahi salaam nangul nañ ko ko mooy dafa doxut ci coobareem ndax wa daayan ilallaahi bari na lool waaye nag mu ñuy woote jëme ci yàlla bari na lool waaye bi isnihi moo jafe moom nag dafa am bi isnihi te doy na sëkk ni ko sëñ Souleymane waxee léegi muy raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadima wa abdullahi kon waxuma sax moom waaye moom dañ ko tànn sax ngir indi ko ngir moom loolu nekk aw ab liggéeyam kon kooku képp ku ànd ak moom sa war naa dal sa xol war naa sedd waaye nag war ngaa am noo mel nag ndax bu la suñ borom joxee kilifa gi gën a màgg ci kilifa yi gën cee mat gën cee kawe yow itam da ngaa fas yéene war bokk ci murid yi gën a màgg gën a mat gën a kawe gën a set gën a sell gën a laab loolu nag dara duñu ko may dañu fas yéene jëfe ay ndigalam tey moytu ay tereem te léegi sëriñ bi li muy digle nag mooy li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi digle li muy tere moom mooy li muy tere kon moom génnut sunna seentu saa sallam nazaafatuhu kulli min al laghwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayin kon leeralaat sunna seentu saa rek loolu rek moo ko fi indi kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo aju ci moom kon nañ fas yéene sunna soosu képp ku ñu xool rek gis ko ci noonu képp ku ko natt rek ci noonu mu nekk mbub moo xam day yem képp ci noonu du ëpp du yées ndox foofu lañu war a nekk noonu lañu war a mel kon nañ fas yéene gën a góorgóorlu gën a farlu bu baax a baax te xam ne nag li ko sëñ Souleymane waxee bis bi lépp lu ci waay def te ànd ak pas-pas ak pastéef rek loolu suñ boom gis na ko te suñ boom daana ko fay te li ci sëñ bi digee da nga daj ak moom jamono ji nag am na fu mu toll ba jaaxle yi bariwoon na lool ak tiitaange ak njàqare yi waaye nag mbirum sëñ waa moom kenn du ko takk ci jamono ju naqar yi wala jamono ju neex wala jamono joo xam ne yenn yëngu-yëngu ñoo ko cee bàyyi xel ñun li ñuy xool suñ pas-pas ak suñ digganteeg sëñ bi suñ pësteef suñ digganteeg sëñ bi suñu bëgg sëñ bi ak suñu gëm ko ak suñu dogu jëm ci moom te xam ne loolu ci suñ lépp nekk suñ amee pas-pas ak pësteef amuk dogu rek lépp luñ xàcc rek barkeb sëñ mooy ñëw suñ borom def ñu tawfeex ba loolu ñu def ko nañ ko bëggee moo tax kon li ñu yéene woon ci bis bi fas ko ci defal sant sëriñ Touba santale ko sëñ sëñ Touba ci bis bi liggéeyal ko ci santale ko boromam ci na ko bëggee loolu lépp alhamdulilahi rabil alamin ñoo def na ci tawfeex ba nañ ko bëggee woon rek dafa faw xa sax ndax màggal ren gi daa am lu ma lu ma ci seetlu mooy ndamul sëñ Touba dama ko cee seetluwaat ci màggal gi lool ak it téye gi mu ki nga xam ne mooy beesal sunna sallallahu dama ko seetluwaat ci màggal ren gii waaye itam nangul gi nga xam ne itam moom la ko doomu aadama yi nangul kenn noom nanguloon yàlla nangul ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam noonu la ko xoli jaam yëpp nangul waate loolu dafa feeñ ndax fi jamono toll lu bari kenn xam ngeen ko li ñuy wooyee xew-xew Covid 19 bi maam mbas mi ñuy wax ne moo fi nekk muy coronavirus bi ñuy wax lu baree bari da la da laal diine dafa mel ne moom diine dañ ko ci wutal wàll woo xam ne moom wàllu boppam la tëj nañ jàkka yi àgg nañ ci tere aju màkk gi barab yi nga xam ne barab islam yëpp nangootuñ ko fa dem ci suñ seen sax di tëj daara yi daara yu bari tëj nañ leen yi nga doon jàngi alxuraan jël seeni gone yóbbu yóbbu lañ ci foo xam ne. daanaka kenn xamul mu doon te tiwut lañ doon bañ dajaloo gi ñu doon bañ ne moom lañ doon bañ ci daa ba tax ñu yóbbu fañ fa leen yóbbu sax moo yées far ndax dajalewaat nañ leen ba noppi leen defloo loo xam ne kenn xamul mu doon waaye Serigne Touba nag mi nga xam ne moom moom moo taxawal islaam taxawu alquranul karim moom mbooleem li nga xam ne moom lañ ne moom lañ doon téye diine di ko ci galgal ngir bëgg koo nërmel moom ci ab dëkkam lépp dafaa gën a dëgër gën faa taxaw gën faa sax ndax boo waree Sénégal jàkk yi bari tëjoon nañ leen waaye jumaay sëñ Tuubaa ji mësta tëj mësta tëj naka noonu itam mbooleem li nga xam ne moom doon ragal di ko tiit xew-xew yu baree bari booy seet nërmeel nañ leen fexe nañ ba yooyu amut waaye bisub sëñ Tuubaa bii nag nga xam ne mooy bisub bi nga xam ne mooy cant cant nag mooy dàq mboolem luy musiba ndax nattu mooy jiitu xewal li ko sëñ Souleymane leere waaye nag cant nag mooy li nga xam ne moo gën a gaaw tegg ci am natt fi mu ne fi ne natt bii ñuy wax di ko ragal fi ne cant gii rek mën naa yóbbu lépp gi mën naa yóbbu lépp ndax cant moom moo gën a gaaw ci teggi am nattu ndax dañuy wax ne sëñ bi bi mu nekkee Gabon ci barab boobu mu nekkoon te yàgg fa lool ca taatu garab googee ba mel ni barab bi da koo xaw a sàppi ci xolom tax suñ boroom teg ko ay nattu ay goddi melentaan yoo xam ne ni nit ñi soxare ëpp na yëpp ñu sam ko ba yaram bi sax daanaka feeñut diko mat mat yi saf waye yakul ko dara ci ak jaam yalla te du wone julli julli te wut limi muy tagg dara musu ci dok muy mu xam nak nag amna lolu am na xaw a ci xal tok ci xolam motax suñu bam tekko bi muy jéggul suñu borom jéggul suñu borom ñaan suñu borom ti teewul rek melna natt bi gëna yok waye nak buñ mu li lepp ak ak doli la ci mom mu tambuli nak di sante suñu borom di sante suñu borom bi mu tàmbalee di sant rek ci la nattu ba taamu ñi tàmbali di wàcc tàmbali di wàcc tàmbali di wàcc ba yëpp jeex takk kon sant moo gën a gaaw ci teggi am nattu moo taxoon ñu fas yéene kon santale suñ Tuubaa suñ borom ci bisam bii cant goo xam ne nag ñu ci yéene waale mbooleem loo xam ne nii rek ñu ngi woon ci àdduna ci ay naqar ak i nattu suñ boom dàqaale yëpp te ubbi nag bunti xéewal yi nga xam ne moom la cant di ubbi yëpp rek mu ubbi ko ubbi ko mboolem nokki taalibe yi ak jullit ñëpp ubbi ko ci àdduna bi yëpp xam naa daal li ma waxoon sëñ Souleymane dafa jiitu indi waxi kàddu yoo xam ne mu ci dara dara moo tax daal dañuy santaat suñu borom rek ci tawféex gi ñu tawféexal bañ bokk ci liggéey bi bokk ci bis bi te ànd koog nag suñ kilifa gi nga xam ne moo ñuy jiite liggéey bi muy sëñ Mbacke Abdoulahi di ñaan suñu borom gën koo fee yàggal te gën koo wéral te nii nga xam ne moom la digalee bis bi loolu rek mooy ne ko sëñ Tuubaa digalee woon jàng alquranul karim ba weer wi teeroo ba tey ñu ngi ci te moom lañ fi nekk waat tey ak suba ak gannaaw ëllëg. naka boole ko jàng durus xasida ak kuréel yi li ci des ak it tudd yàlla lépp moom la ñuy boole ak salaatu an la ci tege mooy bernde mooy itam lépp lépp nañ ko sant na ko suñu bëggee moom noonu la koy defee dara du ci manqué te amul xejj ak seen kon loo itam ñu ngi santaat suñ boom ci boole gi mu ñu boole ba mu wan ñu yoonu bañ mën a dundal bis bi ni nga xam ne la ko sëñ Tuubaa bëggee kon ñu ngi santaat suñu borom di ko sant di ñaan suñu boom gën ko fee yàggal te dolli ko ak wér bu baax te dolli ko kàttan ba liggéey bi mu liggéey suñu borom di ko liggéey rasulullahi sax di ko di sayul xadim mu watal ko sëkk ci baat nag saahir te lépp ñu ànd ko ak moom tam nangul ñu sunu ànd nangul ñu itam sant it sunu ànd te gërëm ko àddina ak ñoo ngi nuyu mbokki taalibe di jégalu ñëpp di leen wax ne yàlla nañu suñu borom defal màggalu jàmm ak salaam màggal goo xam ne luñ ci jëf rek dañ koy nangu te ñu yàgg koo fekkee yàgg cee santale Serigne Touba suñu borom te suñu borom nangu ñu lépp te gërëm ko àddina ak alaaxira ci bàkkeb sayul xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa siwa nasabala huna lay